mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nekk ay kàddu tiis ay kaddu naqar ay kàddu métit boo xamante ni dal na ci kaw askanu Sénégal wala dal askanu umma islamique bi yëpp muy suñuy kilifa suñu wóllëre bi nga xamante ni moom la ñu ñàkk di El Hadji Sidi Lamine Niass mu nekkoon kenn ki nga xamante ni buñ doon wax ay jaar-jaaram ay jëfam ay yiwam du jeex ndax ginnaaw ba tiis bi daanoo suñu kaw ba tey bu ngeen xool kàddu yu benn la mooy ay jëfam lu ci waay wax rek mu doy njàmbaarteem nekkatul lu ñuy laam-laamee man Sidy ba mu koy njëkk a teg bët mu ngi nekkoon ci quatre-vingt-dix-neuf su ma mooy ba kii di El Hadj du njaay dos doon gént taawam bi waaw di Muhammad keroog xaw nañoo sax naajee tudd ndax relation bu amoon nag Njaay Doos def ko papam mu ne sama doom bi kat moo nam ma tëfli ci noppam bii keroog ñu taxaw di ko xaar boobu su may fàttaliku Pape Alé Niang sax mi ngi fa woon maa ngi toogal ci ginnaaw ndax boobu xamante wu ñoon ñu si mel ñoom may mun a Ndiir ñoom Reine Marie fay Assane Gueye ñu naan dégg seen baat yëpp man keroog laa musa teg bët sii di ñëw fa wane fa kilifteef wane ni man képp kuy liggéey ci man rek nu ma jàppee sama doom bi di Cheikh Tidiane noonu laa lay def donc mu nekk loo xamante ne marqué na ma trop ci moom wax dëgg yàlla mu nekk nit koo xamante nit ku jàmbaare la woon nit ku yàlla mayoon la woon aw fit ndaxte boo jëlee sa réew tere ak sa bakkan sii di dugg na kaso bund xatal nañ ko toroxtande bu nekk dund na ko te pourtant bu ko neexoon def ni ñu bari di rangale ay immeuble am Walfadjri mooy seul groupe de boo xama de presse xamante ni pendant des années ñi fay ay gendarme pendant de années laa leen wax nag ñi ngi fay ay gendarme yu taxaw ci buntu Walfadjri ndax mooy seul télé boo xamoon bés boo amee lu loon naqari fa nga koy fa nga koy jooytee télé askan wi musuñoo journal ba mu jeex te waruñu ay banderole yu rouge si di xam ne lii dafay déranger askan dafay déranger pouvoir waaye moom lépp loo xamante ne gis na si njëriñu askan wi rek ci lay dox beneen bi maa ngi koy fàttaliku le 19 mars 2011 keroog keroog ñu njëkkoon assemblée ñu njëkkoon ci place l'Indépendance ci laa bokk maa ngi fàttaliku keroog tamit ci laay njëkk a teg bët kii di Babacar Fall maa moom ñoo dëkkandoolu suñuy micro ci euh, haut-parleur yi parce que boobu moo nekkoon sama premier direct bu ma liggéey ak xalima tout le temps ma wax ko bu ngeen fàttaliku keroog yu Touré bii keroog fa la daanu xëm yëpp suñu karam la woon. di taxaw wane fa jàmbarte ne Abdoulaye wadd dafay bàyyi prisonniers yi wa illaa place Tahrir bi ñuy wax Égypte dinañ ko indi fii def ko suñu place place de l'indépendance bu ngeen xoolee 19 mars boobu moom moo déclenché 23 juin keroog 23 juin tamit 8 heures Sidi Lamine Niass sama kanam la yegsee keroog ñu def en direct Walfadjri bés bu ngeen xool bande Walfadjri boobu sax. sama catu karam yi mi ngi ciy feeñ tuuti ndax sama karam la ñëwee keroog muy wane ni mag la woon kilifa boo xamante ni tey ji du toog rek ci saalam di yabal ndaw yi heure bu ko wéram mayee fu ñuy wootee ngir njariñu Sénégal fu ñuy wootee pour la liberté de la démocratie fu ñuy wootee ngir intere réew mi si lem moo fay jiitu donc ku mel noonu bu ñu ko ñàkkee tey ñàkk nañu lu rëy may fàttaliku sax keroog référendum yi passé ba waa ARTP taxaw ne dañuy tëj buntu dañuy tëj rajo bi keroog yàlla ak Mamoudou Ibra Kane moom moo ko moom moom moo ko moom moo ko signalé donc mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñuy wax ci ay jëfam jéggi naa sax ñi nga xam ne yóbbu leen ñu ziyaare yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam emploi tey yéene moo nekkoon emploi mi yëpp dem màkka jël li Walfadjri daf ko daf ko une famille donte état mi ngi ko doon xeex façon xeex bu nekk façon jëfiñ bu ñaaw bu nekk moo tax fu nekk nii lu bari tey dinañ ci waxtaan ñu war see bàyyi xel ëllëg lu mat du añ du reer waaye lu mat a sóoraale la état demoon de bu publicité ay publicité am sax Walfadjri duñ ci bokk muy góorgóorlu am yàlla yàllaa ngi ñàkk yàlla yàllaa ngi nekk nit ko amoon gëm-gëm nit ko amoon pas-pas moo tax fi mu nekk nii keroog ba ñuy taxawee ne dañuy saccagé Walfadjri ay ñoom président Macky Sall ñoom Moustapha Cissé Lo kenn ku nekk jaar nga fa def témoignage su rëy ci Sidy Lamine Niass ngeen baal ma témoignage bu nekk wax nañ ko keroog ci Sidy Lamine Niass ba ñu toogee ci réew mi ñoom ñoo ko njëkk a xeex Moustapha Cissé solo wax bu ñaaw bu nekk teg na ko ci kaw Sidy Lamine Niass ñu war a xam ne àdduna àdduna dara jaru fee ñaaw àdduna amul solo lu tëgg tafee tas wax naa ko sama njëlbeen du wax bakkat bu ñam dund di ñam dee dafa am loo xam ne nag ñu ni ñu ni neen la Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kenn mënu koo xar ñaar bu dëj amee dafay boole nit ñi bu bu bu bu bànneex amee dafay boole nit ñi lan moo fi jar soxorante bu ñu nekkee lan moo fi jar bundu xatalaate bu ñu nekkee nañ ko rafetal daan naa ko wax ay proche Idrissa Seck ma ne leen gis ngeen seen diggante ak Ablaye Wade bii ñaanuñu ko yàlla yàlla na yéex ak Macky Sall kasaalika te ngeen kaa jéem rafetal jamono ji ëllëg moo gën nit ku jóge fi ngeen ñëw taxaw di jaay di di di xoojale ay bët di jéem a jaay témoignage jaru ko ay seede yu rafet nit ki dafa bëgg di dund ñu koy def ci moom tey Sidi yàlla na yàlla oyofal suuf si kawam bu leen doon waxtee naqar yu mu dund yëpp ak lu ko état teg yëpp billaahi di ngeen leen xet waaye bu la yàlla mayee ngor may la gëm-gëm may la pas-pas lépp lu ñëw da koy dëkku ngir rek mën a aar sa njaboot lépp lu war a dal sa njaboot dangay ñaan yàlla mu dal ci yow moo tax su ma daan dégg nit ñi daan yenn wax yi ñaaw yi daf may naqari tey ñaanu moo ko yàlla encore une fois bu fi Ablaye Wade tey yàlla na yéex yàlla na yéex lan moo war a nekk tey discours Macky sàll ban discours la war a mën a tenir ba askan wi naw ko te pourtant am na occasion jëm réparer les erreurs yi nga xamante ni amoon na si digganteegu moom tey Moustapha Cissé solo bu ñëwee tey si daju si Lamine Niass lan la fa war a mën a tenir lam fa war a mën a wax en tant que vice-président assemblée nationale lan la fa war a mën a wax donc politique bi waru ñoo nangu mu ñuy jaxase au-delà de la politique yàlla relation humaine boo xam ne dañ ko war a sàmm. man foofu laay woowee nit ñi xam ni génn àdduna si Lamine bii dañ ci war a jàngatee lu bare bare bare bare bare lu bari nag lañ fi war a jàngate ba ci sax njaboot bi nga xamante ni ñëpp jaar nañ ci Walfadjri man ay temps dama daan wax naan euh, groupe de presse bu mag boo dem Sénégal di fekk koo xamante ne Walfadjri la nekkoon pour pourquoi mënuñoo mënuñoo jéem a créer benn kuréel boo xam ne ñoom ñoo leen ñoo leen di boole je sais pas du tuddee ko les anciens de Walf wala leneen ba si lem ñu doon doon féete soixante cinq ans je pense laa xalaatoon ma ni tey jii ñii waroon na ñëw boole ñoom ñëpp rek dem defal si lem ñu benn cadeau benn surprise parce que reconnaissance dafa baax ci doomu aadama bu ñu rek taxaw bàyyi ba nit ku jóge fi ñu dem taxaw di rang def ay témoignages bien vrai que baax na rafet na mais nit ki di ko dund tamit di ko mu ñu xam ni kat lii man liggéey naa ko loolu fa lay gën a yokkee mbégteem waaye nag Sidi yàlla def na lu mu liggéey ci senegal kenn mënu kaa fay kenn maa ngi fàttaliku ba muy dem Afghanistan dem nekk ci char yi amoon loo xamante ne bëgguloon kenn ku laaj diine gi wala bëgguloon kenn ku gàqal diine l'islam donc Sidi mënuñoo wax ci yow lu bari parce que bokkuñoo si ñu la jege pour mën a pour mën la xam mais luñ daan gis à travers ses ses actes luñ daan gis à travers ses discours ci loolu rek la war a mën a sukkandiku pour mën a def teemoo témoignage ci yow di la ñaanal yàlla monument bi nga fi bàyyi muy Walfadjri yàlla suñu borom sàmmal ko boppam. yéene bi nga amoon pour def Walfadjri mu nekk Al Jazeera Afrique yàlla na ko suñu borom mottali yàlla na yàlla sàmm njaboot gi fi bàyyi yàlla na yàlla taxaw employé yi fi bàyyi ba ñu mën a am ba mën a yóbbu kër gi fi nga bëggoon mu yegg yàlla na yàlla seddal say yax sa mission moo jeex ci kaw suuf li nga waroon liggéey yëpp liggéey nga ko sa mbëbët moo nekkoon dund at yu yonent sallallahu alayhi wa sallam dund muy 63 ans weesu nga ko donc fa la sa mission yaakaar naa ni bénéfice nga doon dund gàcceloo suñu réew benn yoon gàkkaloo la presse sénégalaise benn yoon gàkkaloo diine benn yoon yal na yàlla seddal suuf si sa kaw yal yàlla xare la àjjana yal na yàlla sàmm taxawu lépp li fi bàyyi ci kaw suuf mbokk yi ci baatu waa Infos Rewmi muy site bi muy chaîne bi maa ngi yóbbu joxe sama njaal waa Infos Rewmi yëpp ñu ngi ñu ngi leen di jaale askanu Sénégal ci ki nga xamante moom lañu ñu bokk ñàkk ko di ko jaale sama xarit euh, Ndiaga Fall ah Fall Ndiaga xamante ni fa la nekkoon lu baax rek la daan wax ci Sidi bu daan toog di waxtaan lu baax rek lay wax ci Sidi donte jóge woon na fa jàppoon ni mission moo fa jeex comme ni mission am tey jeexee ci kaw suuf moo tax ñu ngi leen di gërëm bu baax Infos Rewmi yëpp ak groupe Infos Rewmi yëpp ñu ngi am naqar ak di partage ak yéen lu ñu bokk di leen gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf.